بذكر حكيم عن جناب الهدى سبا أرتل ما دمت حيا واكتفي وانفي بإبليس عني وتدبا إليه التجاه وهو مهن وواسع له الملك ثم الحمد والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق تدبيري به دفع والجلب رديت به ربا كريما مكرما وقاني الهدى والحرب والبار والتلبى جزائي على المولى بردي Touba bismi waaw daxtu jismi waaw daxtu xalbaan nawaytu naaruna li Touba bismi waaw daxtu jismi waaw daxtu xalbaan خادم خديم له ملك عوز خوى الخرباء نجاتي من الاعداء والبار والبلاء غريبا وحيدا من عزيز ملا الجربان هداني تعالى بعد ما كدت هالكا بجاه الذي خسينا الهجم والغرباء انادي في سر وجهل وارتجي سلائي وإسلائي بالأهل والتربى سلمت له لا للغدا ثم كانني وكنز كتاب النبوة يصف الكربى سلمت له لا sama mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte man directrice générale Expresso Sénégal teew fi tey ak équipe bi di dalal suñu projet Adiya Expresso Touba projet Adiya Expresso Touba du lenn lu dul nag jagleel yenn euh, situ Touba yi yu mel ni mosquée bi yu mel ni université Cheikhul Khadim bi yu mel ni résidence Cheikhul Khadim daara Maam Jaara bi ñu jagleel leen internet internet bu jéggi dayo boo xam ni fibre la mais am na également euh, internet boo xam ni rajo la loo lépp rek pour jàppale leen ci seen liggéey ci euh, xarale yi ci également Euh, retransmettre lépp luy activité fii ci biir Touba muy julli yi muy ziyaare yi ak lépp lu ci lu ci aju dama bëgg rek euh, fàttali euh, mbokk yi ne ñun Expresso Sénégal dëgg la e-, télécom société télécom lañu hmm, dañuy jagleel wooteek wuyuuk internet suñu client mais suñu mission tamit bokk na ci ci dugal sunu loxo ci ay activité sociale ak religieuse Euh, dëkk yu mel ni Touba daf ñoo ñor lool wax dëgg yàlla ndax ñun li ñu gëm mooy boo dee société tamit di liggéey di jaay war ngaa war a mën a yëngu ci loo xam ne dina mën a dimbali lu mel ni ay euh, cité religieuse yu mel ni Touba ñu mën a am taxawaay boo xam ni àdduna bi moom la am te taxawaay boobu mënul nekk lu dul mu jaar ci mbirum internet nouvelle technologie ñun ñëpp xam nañ ni fu mu toll nii kenn mënul dund sans moom kenn mënul développé wu sans moom donc suñu suñu suñu suñu suñu dëkk yi di Touba ak yeneen dëkk euh, diine yi nekk biir Sénégal dafa ñoo ñor lool ñu jagleel leen loo xam ne dinañ ci mën a euh, liggéey ak euh, xel mu dal ba pare mu ànd ak qualité te lépp nag dañ ko jagle gratuitement defuñu ci lépp dara dara dara loo xam ne dañ ciy séntu xaalis wala dañ ciy séntu leen dañ ko def te yàlla tax ak suñu Touba donc ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax bu ñu mayee ñun avril lañ fi ñëwoon gis sëñ Mountakha Bassirou Mbacké wax ko li ñu li ñu mbëbët wax ko suñu bëgg-bëgg mu nangul ñu ko ñu sant yàlla tey ñëwaat fi nii ci mois d'août bi pour wax ko ne liggéey bi egg na donc ñu ngi ciy sant bu baax équipe technique bi nekk fii ci biir Grande Mosquée Touba bi di sant suñu équipe technique tam bu Expresso Sénégal macha allah taxaw nañ ci taxaw bu am solo di sant équipe commerciale équipe stratégie ñoom ñëpp ñi ci jàpp di sant tamit chef de projet bi sëñ Modou di sant sëñ Assane Boub wax dëgg yàlla jàpp nañ ci jàpp goo xam ne jëm sëñ Touba rek a tax donc sant nañu bi ñu amee tey occasion nekk ñu fi ñun ñëpp kese opérateur téléphonique am occasion ñu express euh, Touba mën a euh, eggali suñu yéene ba mu mët ba ñu ñëwaat fi tey di ko dalal donc yéene goo xam ne jëm na ci connectivité encore une fois muy internet biir mosquée bi biir résidence bi biir université bi daara maam jaara mais jagleen nañ leen tamit ay jumtukaay ndax dañuy soxla di jokkoo seen biir may nay leen loo xam ne dinañ mën a wootante seen biir gratuitement duñu fay loolu yëpp nag ci programme Hadiya Expresso Touba la ñu ngi leen di donner rendez-vous bientôt dans d'autres cités religieuses boo xam ne dinañ incha allah rabbi répliquer la même chose pour jëmmal euh, diine jëmmal également xarala yu bees yi jëm ci internet ak lépp loo xam ne nit ki war na ko soxla pour def liggéeyam ni mu waree ci jëriñ Sénégal jëriñ population Sénégal ci loolu maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, soxna si madame la directrice ñu ngi lay nuyu ci turu muqaddamatul xidma di nekk fii ci jumaay Tuubaa di nuyu sa délégation bi nga àndal di leen am mbégte di leen dalal ci barab bu tedd nii waaye nga may ma rek ma nuyu ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi doxaloon suñu diggante ak yéen te ñu ànd ak yéen ñu ràññee ci doomam sëriñ Modou Kara Mbacké moom sëriñ Moustapha Bassirou ak sëriñ Babacar Mbuub te ñu am taxawaay bu rafet ci projet bi nga xam ni am ngeen ko ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ci wàllu communication ci barab bi ginnaaw loolu nag ñu jot li ay cant ak ay ngërëm bu baax ci liggéey bu sell bi nga xam ne te technicien yi nga xam ne ñoom nga yebaloon ginnaaw boo gisee ak sëriñ bi ba noppi ba sëriñ bi joxe woon digal te sëriñ bi bokk ci barab yi mu tànnoon jumaa ji eh, ñu ngeen fi yebaloon liggéey nañ ci liggéey bu rafet bu am solo boo xam ne eh, mel na ne nañu ko bëgg woon amee nañ ko ni kon tey soo ñëwee di ko ubbi si jot li seen cant jot li seen i ngërëm te xam ne seenu cant ñoom mooy sax yow parce que li nga bëgg te woon ko rek mooy li ngay def nekk lu am qualité lu am solo lu baax loo xam ne day jëriñ yàlla dogal na nag def nañ ko ci defin wu rafet ba lañ ci doon séentu ñu ngi ko ciy am ndax fii dafa nekk barab boo xam ne ñi koy ittewoo ci àdduna bi dafa bari te yaatu te suñu sañoon fu taalibe nekk lu ñu fi lu fiy ndigal lu jóge ci barab bi wala lu ñu fiy def fam mën a nekk da ciy bokk te la ko ciy boole nag internet bokk na ci parce que léegi àdduna bi dafa mel ne benn néeg bu xat boo xam ni lu roq yu sore soree rek ña ca des li ñuy def ña ca des war nañ caa mën a am xam-xam surtout nag bu dee loo xam ne da nga caa bokk te lu cay jóge rek nga war caa ànd kon dañuy rafet lool bu ngeen jafee jëf ju toll nii ci barab bu mel nii ñu leen ci bu baax a baax comme ni nga ko waxee nag def nañ ci benn lu ñu fibre bu bu am doole antenne bu am doole boo xam ni euh, télévision bi ñu ngi ciy dox man ñu ciy dox ak yeneen jumtukaay yi nga xam ne itam ñu ngi koy jëfandikoo fii ci barab bi te mu nekkoon saasa bu diis ci kaw daayira yi yàlla def ngeen ñëw jox sëriñ bi addiya bi ci ay barab mu tànn barab bii boole ko ca barab yooyu ngeen ñëw nag jëfe ko ak yéene ju yoo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko ci diggante bi nga xam ne ñu fiy nekk waaye ni yéene ju toll na jën ci am nag ñu di la seereel na itam sa équipe yi fi nekkoon it yéene ju toll noonu lañ ci am taxawaay bu toll noonu lañ ci am kon Serigne Babacar ñu ngi lay sant bu baax a baax ci taxaw gi yow ak Serigne Modou Kara di Serigne Assane Serigne Assane damay juum damay jaawale ñoom ñaar Serigne Assane ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi di sant itam Serigne Modou Kara ci kanamu soxna si nga xam ne xëy na moom moom mooy kilifa liggéey bi te bu ñu santee njabootam rek day wane ne moom sant nañ ko ndax lu njabootam def moom moo leen ko sant waaye yéen ñi ñu doon taxawuloo itam taxaw seen taxawaay mat na sëkk rafet na lool. andi nañu it mboolem loo xam ne waxoon nañ ko ni ñu ko waxee ci biir liggéey bi joxe nañ fa ay téléphone yoo xam ne ñi seq liggéey bi di kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ñoom ñëpp léegi am nañu possibilité di jokkalante seen biir ci loo xam ne dara luñ ci gàddu amu ci lépp yéen ko gàddu loolu nekk liggéey bu am solo ndax day jàppandal liggéey bi ndax barab bi dafa nekk barab boo xam ne léeg-léeg da ngay dem ba suka tëdd ba xaaju guddi di jékki-jékki dara am loo xam ne ñëpp dañuy war a jógandoo ci kilifa yi ñëwandoo ci benn barab léeg-léeg da dem ba sori fu sori ñu war a dara xew loo xam ne ñëpp dañuy war a dajandoo ci benn jamono su boobaa nag su amul lu leen mën a jokkale dañuy wut a jokkoo ba ñu mën a jokkoo léegi nag yàlla def nag ci njëlbadul Expresso ci sa taxawaay ndax eh, nga ne lu ne nag day am la ku yàlla jagleel ci sa taxawaay la yàlla dogale loolu am ba ñu eh, ñi ngay di joxoon sëriñ bi sëriñ bi sëdd allah loo xam ne kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ñoom ñëpp ku nekk am na ci benn loolu kon ñu ngi koy seereel àdduna bépp di leen sant xam ne loolu itam nag wax dëgg yàlla yéen la ko yàlla tàmbalee mën naa am xëy na daana law yi kan waaye yéen la ko yàlla tàmbalee al fadlu nag loolu mu tax addim képp koo xam ne jiitu na ci lu baax kooku ngëneelul lu baax la kon moom la ko suñ borom jagleel kon yéen la suñ borom jagleel bi ñu ngi ñaan mu nekk njiglaay ci yéen nekk loo xam ne itam day yokk kër gi nga xam ne moom la jox yaakaar yi ñu amoon ci yow ba dénk la ko yàlla may leen xalaat bu baax bi yow ak ñu lay jàppale ba ngeen tàmbalee lii ci këri diine yi suñu borom ubbi leen ubbi leen ci buntu xewal yoo xam ne da ngeen xam ne li yàlla yàlla day ñëw yàlla nag ku ko lebal moom daf lay moo te lépp lu waaye defal sëriñ Tuubaa ci suñu borom nga ko lebal te pour lebal suñu na ne la gën a néew te lam lay la muy fayee mooy day tàmbalee ci fulal la ko fukk dem ba ci juróom-ñaari téeméer dem ba ci nag mu ko neexee wallaahu yudaa an kulli man yashaa yàlla nañu yàlla digal ñu wallaahu yudaa an kulli man yashaa ba muy yor nga xam ne mooy yàlla mooy xool nam toll moom mu fayee noonu ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci turu sëriñ bi di tënk suñu kàddu foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر